absence waaw absence loolu yaa ko gis rek noonu parce que tubaab day wax souvent l' apparence est trompeuse comme ñun duñu tête de liste defe naa ñuy affiché woo ku nekk ñu dugg mel ni tête mel ni ay loolu bokkul ci euh, principe républicain mais liggéey bi ñu set ak son excellence le président Macky Sall parce que Benno Bokk Yaakaar revendé wuñ ko dañ ko dañ ko créé. bokk yaakaar mën nañu wax sunu doom la waaye nag nekk ñu tête de mais liggéey bi ñu war a liggéey di ko liggéeyee son excellence président Macky Sall lañ ko daan defee démb ak barki démb noonu lañ ko defee euh, bi ñu bi mu tànnee de def nañ déclaration ne nangu nañu décision président de la parce que loolu rek moo ñu war bëgg nañu ay liste dugal nañ si ñi ci war a dugal ñu ngi dem ci délégation yi mais xëy na Mariama Sarr ngeen gisul lii yëpp naa Mariama daan defee rek dinañ ko defee noonu